ak région de Dakar yëpp la ñoo ngi si 116 marché. 116 marché fi mu nekk délégué yi ñoo daje di waxtaan parce que nag marché bu gis am na ñoo xam ne ñoom lañ fa jiital muy délégué bu góor ak délégué bu jigéen ñii bu ñu xëyee di jaay yow yaay dox seen soxla kon nag yow yaay dem yaay dem yaay dem indi. lépp loo xam ne daal boo ko wuti jee njëriñ la boo ñëwee rek nga koy indiwaat sa askan muy sa marché bi nga xam ne moom nga jiite. Eh, waa nguur gu bees gi moom dañoo bëgg rek lépp lu muy defati rek di jëli ñi nga xam ne nekkuñu ci marché di mbubboo ne ñoom ñoo jiitee commerçant yi wala commerçante yi nañ ko bàyyi daal dugg ci base bi xool ñi xam ne ñoo nekk ci yi nekk ay commerçant ak ay commerçante ñuy jëflante ak ñoom di leen laaj ban jafe la ñu am di leen laaj lan mooy mu marché yi bu ko defee liggéey bi dina gën a mais bu ñu tëbee rek kenn sol kosam yore bureau daal di jóge fële ñoo ne man maa jiite commerçant yi wala maa jiite maa jiite marché yi tey doo yow woo ci marché xamoo réalisation marché xam nga day daal di dañuy mbubboo tout le temps mbubboo boobu ñuy mbubboo nag la ñu bëgg mu jeex fi. Mhm. waaw man maa ngi tudd Assane Mbaye président union nationale comité de entreprise du Sénégal muy INSES ànd daan doole. waa tey dañu doon daje rek eh, ci cinq départements yi nekk ci région Dakar. pour xool bi ñu taxawalee kuréel geeg léegi ñu toll ci un an jéem a doon xool si suñu biir yi nga xamante ni mooy li jàll ak fi ñu toll ak li nekk ci suñu kanam ci nan lañ ci war a taxawee. waaw ci waa bari na parce que li olof yi di wax rek euh, luy dog di juddu moom euh, mënta xëy xëy rek yori tànk kuréelug marché la goo xamante ni dañ koo teg. Euh, ñu nekk ci cinq départements yi ñu am yaakaar aussi tamit am bëgg-bëgg tasaare ko ci quatorze régions yi quarante six départements yi ñu ngi ciy liggéey te incha allah bu ko suñ borom dogalee dina am ñun nag suñu taxawaay du lenn muy taxawaay comme euh, représenté commerçant yi ak commerçante yi ci secteur informel bi muy li ñuy wax marché ay délégué de marché yu yilif seeni marché dajoolu ci ak kuréel ngir li ñu seq mu yokkal ma jaay la nan la ñuy def ba nga xamante ni yow miy génn ci biir kër gi yor sa leget jëm ci ci marché bi soo dikkee di nga xamante ni fekk nga fi lu daal sa xel mooy di nga dugg ci marché bi d'abord ci jàmm génn ci jàmm beneen bi ci des mooy suñ borom dina dogal lu nekk ci sa poset wala ci sa lëfu sër soo dikkee di nga ci mën a am li nga xamante ni tey jii mooy tolloog sa wërsëg ngir nga yóbbu ko sa bopp surtout lu si yow ak sa njaboot. nan la ñuy def ba ñun ñu nekk ci marché yi ñu am organisation ak déggoo boo xam ne te ñooy xàccandoo di tegandoo su naqar amee ñoo koy bokk bu banneex amee ñoo koy bokk département région bu ci am jafe-jafe ci wàllu marché su ko defee nan la ñuy def ba àndandoo déplacé wu ñu fekk si leen ñu àndandoo ko dox ko ak wax ko ci li commencé ci autorité administrative yi ka fa njëkk di maire yi du sous préfet yi ba ci préfet yi ba ci ministre di commerce bu ko àgg mu àgg fi loolu mooy li nga xamante ni mooy taxawaayu kuréel gi di ko taxa a jóg. ñu ngi euh, ñu ngi si beneen régime bu bees. Mm-hmm. ñoom ñu wax wàllum euh, baisse des prix des denrées. wàññi njëg waa xam nga olof dafay wax nit ki lu mu doonul taalibeem du doon sëriñam te lu mu mën a doon rek da nga koy jox ña ko moom ñun ñi taxaw fii marché nekk na fi lu yàgg te ñu te danañ fi jugal yàgg marché nekk fi mais li am solo mooy jamono bi ñu toll nañ fi liggéey loo xamante ni su ëllëgee keneen ku fi ñëw rek dina xam ne ci nii ci lii lañ ñëwoon. li ma bëgg wax mooy état bii ñëw na xam ne ay état ku jiitu woon moom mu ñëw doon état te dana fi jugal yàgg yeneen état ñëw di fi nekk mais li am solo secteur bu mu soxla ña nga xamante ni ñoo ciy xëy di ca gont xam réalité secteur ba bu bëggee ca loola am si seen set na wax ak ñoom gis nga wàllu yokkum prix ak wàññi prix ñun délégué de marché yi représenté délégué yi marché yi nekk ci nga xamante ni sa soxna ak sama soxna soxna si keneen su yoree leget tey jii demul ca bitig ba di nduggi demul ca magasin ba di nduggi ku yor sa leget wala jëm sociaux rek ca marché ba ngay dem di duggi kon marché neex na ak marché naqari na ci marché lañ koy waxee état lu mu wàññi wàññi wàññi ak lu mu subventionné ak lu mu teggi teggi ay taxe te li muy def boolewuñu ci du am njariñ ndax ñun ñoo war a doon bëti état ci li muy yokk ak li muy wàññi feeg toogut ak ñun wax ak ñun ñu wax ko suñu xalaat état yi ko jiitu fañ daan jaar ba bu ñu wàññee àllarba alxamis askan wi yëg ko bu ñu wàññee alxames àjjuma askan wi ko feeg toogul ak ñun délégué de marché yi du ko xam. ba léegi amagoo euh, léegi amaguñu toogaay ak ñoom mais ñuy dog di ñëw la di dog di installé te jàpp naa ne xam nañu suñu kuréel gi ñu ngi fi te suñu kuréel gi niñ fi nekkee ni la yeneen kuréel nekk fi yoo xamante ni ñoom it dañu représenté commerçant yi commerçante yi may wax ni état du Sénégal bi fi nekk lii mu bëgg ci askan wi askan wi ko gën a bëgg mooy lekk ba suur naan ba feebar faju secteur bii ñu nekk nag li ciy jafe-jafe ñun ñoo ko mën a wax li ci ne su état dindi woon taxe mu teg ci lépp lu mën a doon muy ceeb suukar diwlin tamaate ba pare situationné te ñun boolewuñu ci lii ñu def ba ñu wax ko rëq-rëq yi fi mu nekk li muy def askan wi duñ ko yëg mais bu ñu toogoon ak moom bu àllarbaa bu alxamise bu yokk bu àjjuma bu askan wi xëy yi dinañ ko yëpp. nguur gi passé amoon na projet rénovation moderniser yenn marché yi. <laughs> waaw loolu modernisation marché moom euh, yaakaar naa ni euh, ñëpp bëgg ñu moderniser leen seen marché ndax am na ci yoo xamante ni ña ko sancoon suñ borom dogal tey ñu génn àdduna tey ku leen yeewoon seen i bàmmeel bu ñu dikkusee ci marché dañuy waaxu dem seen i place te jamono laajatut loolu modernisation marché moom day lu jaadu te marché yi dañ leen war a moderniser waaye nag nit ki soo koy defaral da nga koy fekk ca la mu bëgg nga waxtaan ceeg moom nga defaral ko président Macky Sall bi fi jóge amoon na yéenay moderniser marché yi ba tànnoon ay marché yu bari ne marché diw marché diw marché yi nañ ko moderniser waaye bi ñu tegee direction direction yi boobu ñu jël ko teg ci loxol nit nit kooka na président waxoon ak acteurs yi ba acteurs yi ne ko waaw ak kooku ba mu dikkee nam bëggoon a doxale du benn kon lu ca yàq sa yaa Fatou Diagne mi jiite woon promotion ca la yàqoo waaye du ci état bi su jóge te ñun ñu délégué marché yi délégué boo fi gis bu taxaw ba sañoon ñu defaral ko marché am mais nit ki soo koy defaral da nga koy laaj mu bëgg mu wax la ko nga ànd ca ak moom defaral ko waaye doo dikk ak sa xam-xam marché ko jàng ci école dañu koy dund te ñun dañoo dund marché képp ku bëgg a defar marché yi da nga toog ak délégué marché yi nga waxtaan ak ñoom su ko defee ñu wax la seeni xalaat ndax marché ba la muy rëy rëy rëy rëy bu fa ministre ba xëyoon taxaw ñu ne ministre baa nga béréb sàngam délégué ba taxaw fee wootee délégué ba la ñu wujji kon kër googa délégué booba mooy borom kër ga la nga fa bëgg a def soo koy def da ngay waxtaan ak délégué bi délégué bi ne la lii laa bëgg moom mbooloo bi nga def loolu mu yomb waaye soo ñëwee ak sa programme ak sa xam-xamu bokk ne lii nga la nga fay def dëppoo ak marché ko rogee daañu bañ ba ut bañ la na loolu moo leen li leen dal ci lii passé. daje fii tey ñun waa comité d'entreprise nationale ànd daan doole ngir def suñu xayma ndax bi ñu juddoog léegi daanaka mat na at. Euh, ñu ñëpp tase nañ nag euh, département yëpp euh, nekk nañ fi ñu waxtaan ngir soot fa ñu tàmbalee woon ba fi ñu yegg si tey lan la ñu war a gën a defaraat ci ànd bi lan lañ ci war a yokk lan lañ ci war a joyanti mais surtout yan jéego la ñu war a teg jëmale ko suñu kanam te ci jéego yi bokk na li tax comité d'entreprise jóg te du lenn lu dul euh, commerçant yi commerçante yi liggéey ba ñu ne ñu am ci jàmm ñu am ci sécurité ñu am ci lu ñu suturloo mais euh, mbir yi ñuy yëkkati di ko jaay askan wi tamit doon loo xam ne askan wi dina ci mën a gis boppam loolu nag pour mu am foog état bi ni muy waxee kuréel yëpp surtout ci wàllu ñi wàññi njëkki mu mën a wax ak kuréel yu mel nii ndax particularité bi ànd daan doole am mooy ca ñi gën a sori ca gox-goxaan yi maanaam li ñuy wax détaillants yi ñoo composé kuréel googu kooku nag ñu mel noonu tey munoo wax da ngay wàññi njëkk te doo tudd doo leen tudd munoo wax da ngay wàññi njëkk te doo waxtaan ak ñoom kon day baax. kuréel yu mel nii nguur gi di jëflanteeg ñoom di waxtaan ak ñoom pour que ñoom tamit ñu mën a bay seen waar ci liggéey bi nga xam ne mi ngi am ndax réew mi jàpp nañ ne benn bopp la kenn mënu ko xarñaar li yëkkati nit ñi mooy def loo xam ne réew mi dana taxaw nit ñi nekk ci jàmm ci loolu la ñu ne donc xayma nañ suñu liggéey dinañ xool aussi nu ñuy gën a yaatalee kuréel gi dem ci yeneen région yi ndax ñi ñu fay woo lu bari leneen li ci des rek mooy aussi soxla na fa détaillants yi ñoom tamit ñu mën a taxaw wax ak ñoom ba nga xam ne dinañ mëna jàpp ci liggéey bi mais li wóor mooy lu ñu bëgg def ci réew mi rekk te nit ñi moom ko nit ñi ko moom kuréel ya na ne ya ñu ne di ci yëngatu foog nit ñi wax ceeg ñoom. waaw surtout ci wàllu nag euh, marché yi moom euh, li tax kuréel gi aussi gën a jug te bëgg na dugal bu baax loxoom ak tànkam ci loolu mooy ci wàllu sécurité marché yi ñu xool barab yi ñuy toog di jaay nuñ koy defaree ba mu gën a baax nu muy amee sécurité ndax da ay saay yu bëri dañuy dégg wàllu lakk yu bari loolu am na luñ ci war a mën a def si wàllu également euh, nan la ñuy financement yi nga xam ne dina leen permettre aussi ñoom ñu mën a dérouler dérouler seeni activité maanaam daal kuréel gi moom li ko tax a jóg mooy xool nu ñuy dëgëralee kenn ku ne la ngay yëngatu di ci jëb tëbaka daanu ñu mën la ci dimbale ba li ngay jébbal askan wi tamit doon lu askan wi mën a tegoo kon euh, loolu la woon euh, li ci ëpp sol nag li ñu mën a tënk daal mooy incha allah dinañ daal di tàmbale dugg ci région yi ndax ñu ngi xaar lu bëri yaatal kuréel gi ba nga xam ne lépp luy suñu cër ak suñu warugar ci téye suñu réew mu gën a dëgër dinañ ko mën a def.